ami internet de vipeoples.net di am à contentement comme ni ma ko tàmm di et saay su ne di leen dalal émission bi à taamu di 100 pour people 100 pour cent people nag tey euh, seen euh, premier numéro de la semaine ñu ngi koy tàmbalee euh, ci xibaar fini la récréation les séries sénégalaises qui tournaient sans autorisation à mon école xam ne jamono ji doy noirs, euh, ki nga xam mom moy directeur de la euh, cinématographique mom mo guen dal di wax euh, li ni mel nee na série sénégalaise yi nga xam ne ñu koy tourner té amul autorisation jeex na tey jël na ndogal lu bess képp ko xam ne yaa ngi série bu dé long métrage la té amo autorisation dinañ la amende 3 à 10 millions de francs CFA bu fekkee ne nag court métrage la dinañ la amende 1 million à 10 millions de francs CFA muy nek lo xamné euh jamono ji ñi di tourner série nak war nañ ci baye xel nak la plupart des séries sénégalaises yi nga xamné ne ñu ngi koy faral di tourner amuñu autorisation dañuy ñew rek dal di wacc sur le terrain commencer seeni tournage ndogal boobu nag wàcc na nag nit yi démb donc mu nek lo xam lu jar baye xel la nak 3 millions ba 10 millions yaakaar naa ci benn tournage ñu amande la ko am fu mu de de long métrage. Il y a 1 million, 5 millions d'amende de court métrage. Franchement, il y a un film qui est très bien ba ñu ci loolu ñu daldi di ñëw ci carnet rose ko nga xamné mom moy dom ci ndem ci yalla El Hadji Sidi Lamine Niass du Cheikh Niass mom nga xamné gënaaw bi papaam génne àdduna moom moo ko daal wutu fofu ci télé bu mag bobu di wal uh, Walfadjri mom nak uh, carnet rose lañ ko wax nak gënaaw bi mu takkee jabar nga xamné bu maté un an rek ci la yem daldi na jëlat deuxième femme deuxième femme bi nak pour le moment xamuñu identité am waaye tamit photo yi moom moo ko daal di dugal ci internet bi wane ne désormais euh, yoratul benn jabar ñaari jabar la yor gannaaw ba mu takkee kooku nga xam ne moom mooy activiste bu mag boobu di ndey Ndeye yi Babel Sow moo nekkoon na première femme am nga xam ne bi ñu maree léegi un an rek la def ñu leen di souhaiter heureux ménage moom ak ñaareelam boobu nga xam ne moom la mujjee takk bu ñu jógee ci loolu ñu ñëwaat ci beneen alxayri bi nag euh, l'animatrice vedette de Zik FM lañ koy waxal muy Alima Ndione moom mit euh, gannaaw ba mu marié woon divorce jamono jële jamono ji nag amaat na borom kër ñu koy wax euh, madame mbay samedi bi nga xam ne moom la ñu génn di barki démb ci la déggee alxayri à nouveau donc mu nekk loo xam ne nouvelle bu neex la nouvelle boo xam ne moom mit animatrice boobu mu ngi ko doon euh, rafetlu ci page bi nga xam ne moom la daal di am dugal ci photo nag boroom këram di euh, euh, Cheikh Abdourahmane Mbaye moom moo ko takk ñu leen di souhaiter heureux ménage di ko ñaanal sëy bu barkeel njaboot gu bari tamit yal na ci yàgg te sax bu ñu jógee ci loolu ñu daal di dem ci metre El Hadj moom it nee naa la jamono jii moom it mu ngi def buzz ci net bi li ko waral mooy màggal Touba bi nga xam ne ñu ngi koy dërmal incha allah lu yàggatul dara moom nag daal dina génn def ay révélation yoo xam ne daal na jur polémique maître El Hadj moom nee na je n'irai pas au màggal cette année ci li tax nag mu wax ko nee na feebar bi ci réew mi coronavirus bi dafa euh, jéggi dayoo nax ndax mu ngi def loraange yu mucc ayib gis nañu li ni mel moom nag xelam ak xolam joxu ko mu daal di dem màggali foofu ca bërëb bu sell boobu ci Touba fekk fa ndaje boobu nga xam ne ay millions de million de personne ñoom ñoo fay faral di dajee ci mbas moo xam ne day reyee day lor moom xalaatu ko sax teg tànk demul te kenn mënta wax ba mu dem kenn gënu ko doon murit nag waaye bakkanam moo ko gënal li mel kàddu yooyu nag du samay kàddu kàddu maître El Hadj دي خملت bu ñu jógee ci loolu ñu daldi ñew ci euh, benen euh, information bo xamné tamit bari na sénégalais yu kay naqarlu ndax nee naa la jamono ji boo utiliser wul sax lu ci bari dañ naan ngaaka nga ngaaka ngaam du ngaaka waaye interdit nañ ko fi ci mim réew muy usage vente et distribution le Sénégal interdit du moins la chicha chicha nak jamono ji xalé yi nee naa la fooykaay lañ ko mujj def nak xalé yi nga xamné duñu am sax 18 euh, euh, ans majoro dañ koy faral di laal mag ñeek ñëpp daal jamono ji ku laalul chicha pour yow euh, daa bokkoo ci see bi maanaam amoo buzz wala tamit nekk nga koo xam ne doo naandite chicha nag mu ngi gën a law ci mim réew waaye tamit jël nañu ndogal ne dañ koy daal di interdit fii ci biir Sénégal mu nekk loo xam ne ñu bëri daal nañ ko méttitlu ndax ne nañu cigarette bi moo gën bon moo gën a diiru diiru ruñu ko waaye tamit bu ñu jugee ba di bëgg a interdire chicha am na lu ci lalu lu ci lalu nag bu ngeen ko bëggee xam dugg leen ci seen biir site bi di vipeoples point ci loolu ñu ñëwaat ci kawteef yi nga xam ne marqué na weekend bi mooy lu metti te diis ñu ñëw ca diwaanu Fatick Fatick un jeune berger mort par noyade dans le fleuve Soudioune le village bi tudd xale bu nak xale bi mu ngi daal di lab foofu ci euh, fleuve boobu nga xam ne moom moo nekk ci Soudione di département wu de Fatick mu nekk nag lu doy waar moom nag mu ngi am ay 13 euh, ans ak euh, entre 13 ans et 14 xale bu góor bi moom it dafa demoon di féexal yaramam di dem pour sangu yi féexal yaramam daal di dugg ci fleuve bi fleuve bi na bi mu dugg dafa fekk taw bi nga xam ne moo amoon jamono ji passé ci diwaanu Fatick fleuve bi daal di ci fees dell ba daal di xóot xale bi moom it bi mu sumeekuwee ba dugg ci biir la daal di lab bi mu labee nag ay mboqam dañoo toog quelques heures gisuñu ko ñu daal di génn di ko wëri biñ koy wëri nak daal di dem ba yegg ci foofe ci fleuve boobu nekk ca Fatick bi ñu ñëwee la ñu fekk ci tefes gi ay yéreem yi nga xam ne moom la soloon sumi ko daal ko fa teg ci noonee lañ daal woo secours yi daal def appel ñu daal ñëw def ay recherche ci la ñu gisu corps sans vie boobu nga xam ne ci fleuve boobu la mujj daal di des muy lu metti lu tiis naqar googu nga xam ne euh, weekend bi yëpp waa Fatick ñu ngi koy dund di leen jàll loolu nga xam ne mooy naqar googu dal ci seen kaw buñu ñu ci lolu dañuy demat ci benen kawteef bo xamné mo ngi xewé fi ci Dakar un homme poignardé mortellement près du bar Batasco mon moo mujj euh, daal di sur le coup mom nak xex lañu amalon, mon ak benen natangom ñu don xex ci wetu baro Batasco boobu Mbao ñu jam ci si trois coups de couteau mu daldi di li nu mel nag mu nga xewee fële ca mbaaw ñoom nag euh, dañoo màndi am màndi wu ñu wala euh, dañoo am lu leen metti ba tax ñuy raak ñuy xeex du moins wala li ni mel information complet bi ñu ngi ko def ci biir euh, seen site bi di vip people point net rawatina vip info point net

di des euh, di abuser manam di foyé di teudé ay élèves am góor ak jigen nak la ci bolé ñom ñëpp la daan teudé li ni mel nak bañ ko jappé xol ñi mu personnes lo xamné ci élève jot na leen tëddee waaye li ni mel ñu ngi ko defeere fële ca police euh, boobu bu mag boobu nekk ca diwaanu mbuur waaye tamit ñu ne frère boo xam ne politicien la moo daal di ñëw comme sénégalais rek kumba am ndey kumba amul ndey bëgg nëbb affaire yi bëgg a camoufler affaire yi daal di bëgg a setal kookee di frère boobu di professeur EPS bi pour mu daal di génnaat li ni mel nag population bi ba yeewoo foofu mbuur naqarlu nañ ko am nañ lu ci mel te ñu ngi woo état bi ñu daal di ci teg seen loxo ndax tamit nag jamono ji ñu nekk ci miim réew war nañu dépassé euh, loo xam ne euh, kumba am ndey la kumba amul ndey suñu justice bi yaakaar naa ne développé wu nañu benn façon développé boo xam ne li ni mel ko accepté ti